Thank you. Thank you. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw rek niñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique tey seen chronique dañ koy tàmbalee waxtaan woo xam ne ñu ngi koy dégg mu jëm ci keesu état bi ndax am alal am déet ñuy rafetlu nag kàddu yi nga xam ne ñoom xam-xam ñoo ko ku mel ni mamadou lamine lum nekkoon fi ministre de l'économie et des finances nekkoon fi premier ministre kon du cuune bu waxee ci mbir moomu leen te nag du ne gulet am na ñeneen ñu bare bare ñu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci nguur gi fu mu toll nii am na sama yenn chronique yoo xam ne yëkkati naa ci kàddu sax ne est-ce que nguur gi nekkul ci banqueroute jamono yi ñu seetlu ne ci tontuk état bi tontu gu rafet lañu tontu tontu hamne xam man nañ wax une belle opération de communication lañu def ngir gëmlo sénégalais yi ne alal ju bare bari mi ngi ci keesu nguur gi ku wax na nguur gi amul alal xamo li ngay wax opération bu rafet rafet ci walu communication lañu def tënkee ko nak kaddu yo mom lañuy faral di wax langage d'initié manam ay technicien rek ñoo mëna xam mbir mi ma japp ne ku wara jëf do bari wax ku wara jëf do bari wax te wala fi dañuy am lu ñuy lebu mu nekk lu am solo andaaru wax kopp jëf da ko fay andaaru wax kopp jëf da ko fay manam wax ju bari lol bu jëf ja néewee rek laq lu bare bari ci jëf ji ñu ne kii mën na ña dañ wax dañuy wax rek te ñi wax nak wax rek lañ wara mëna def ndax ñu fu ñuy dogalee kon ki nga xamne ne moo nekk fi ñuy dogalee li ñuy xaar ci mom mu jëf jëf lu na weng kenn du ci am xel ñaar kenn du ci am loh xamne ding ko li ci njëkk dégg naa seen kàddu ñu ne hausse baril du pétrole moo de am na ay jamono ci taux croissance de 7 du cent di fëgg dënn ñu doon xeltu ci wàllu koom-koom nañ taux de croissance bi xol leen bu baax a baax noo koy yore anam lo xamne ne ko xam modi di barul petrol bi dafa wacc lol new lol new lol lolou nak influer ci taux de croissance bi ngeen am kon ëllëg ak sibir biir leen ne taux de croissance bi mën na am ay jafe-jafe bu nekkee ne baril de pétrole bi dafa yokk ñu ne déedéet on maîtrise notre structure économique li ngeen wax xamu ko tey jii ñoom ñoo di ñu wax ne barilu pétrole bi dafa yokk yokk bu jéggi dayo bett leen ci anam boo xam ne ñoom fooguñu ko kon daanaka lu ñu wax rek ku jaaxaan di tuur ndox sa bopp ngay njëkk a ku jaaxaan di tuur ndox sa bopp ngay njëkk a tooyal te kenn mënu fee naxati kenn limay faral di wax ko jappé dof mi ngi wuti garab yum la fajé ko jappé dof la wax mi ngi wut garab yum la fajé tay ji état bi ñu ne mi ngi bari xaliss lol torfa ma sha allah yal na yok waye wax day gatt wax day gatt nguur gi amna xaliss kon képp ku nguur gi yoral xaliss demal nguur gi fay la nguur gi nga ne am na xaalis ca booba entreprise BTP yaa ngi leen yoral lu toll ci cinquante milliards et poussière établissement privé yii 2012 ngeen orienté fa ay étudiants ne tous les bacheliers seront orientés yéen a ngi leen yoral lu toll ci quinze milliards gerte gi dañ dañ yalwaan Chine ngir ñu jënd ko demat ci ba ci Turquie pour ñu jënd gerte gi.

ñom det intérieur bi taxna nyut ñu tejj interior intérieur barilol ngi bari lol taxna ñu tejj te rax ci dolli décembre ba tay ji nguur gi jëlul ben engagement ak ay fournisseur fan ye ci ginnaw lan lañ wax ay coupe budgétaire lañu def jëmele ci semestre bi di ñëw ndax wut fay leen fournisseurs yu ndaw ndawaan yi yi nga xam ne li ngeen yoreel sax matul cent million fay leen alal jooju bu nekkee ne keesu nguur gi am na xaalis wax day gàtt jërul bari te la may wax rek mooy dëgg àndaaru wax kopp jëf da koo fay bu nekkee ne keesu état bi am na xaalis ca dëgg-dëgg fay leen atte bor fay atte bor fay leen comme am ngeen xaalis fay leen lu tax douane xey suba tel rek yokku taxi yeb ba commerçant yi diko ko pour lan pour am alal ju bari bu muno duggal ci caisse état bi xam nañ ne fim nek ni port ci ñu ko yore woon bari won na ci lol ay jafe-jafe am ci lol nguur gi timit am ay jafe-jafe ci walu alal xol len koñ yi bañ fi génné sen Euh, agence boobu ville dañuy defaraat ville yeeg yooyu koñ yu baree bari ñu décapité yoon yi dindi ko ne dañ fay def ay tëli boo demee Sicap Foire gii koñ yépp lañ dàjj foofu laa xam ak feneen ak feneen ak feneen ak feneen dajj nañ tëli yi ba ñuy jub ci élection législative yi ba tey jii mënuñu ko yeggale lu tax seen chantier yi mënoo leen ko yeggali lu tax seen chantier yu ndaw ndawaan yi mënoo leen ko yeggali loolu la sénégalais yi bëgg a xam parce que nguur gu am alal sumb ay chantier da koy matale dama ne li am te muy dëgg moo di am nañu nekk ci nguur gi nag naam keesu état bi amul xaalis waaye ñoom seen poos yaa ngi fees dell ak alal te avant 2012 yoruñu ko woon léegi ay milliardaire la ñuy wax seen kër yi am na néeg yoo xam ne boo fa duggee xetu xaalis moo lay sonal xaalis bu baree baree baree bari lañ yor fan lañ ko jëlee jar naa laaj courtier intermédiaire moo yàq régime Macky Sall courtier intermédiaire moo ko tas tasar am na kàddu yu Moustapha Cissé Lo rotal jëmale ko ci Farba Ngom. am naa lu ma mën a demee campagne laajuma ko ñaari dërëm na ma may jàmm ñiy wax ak xam ne ñoom ay géwal comme Farba Ngom xam ne dafa war a tontu moom. ci liñ ko tuumaal ndax nee nañ ay milliards la yor te xamuñu entreprise am liggéey ci ay marché. moom 2009 it moom bi nga xamee ne dafa fekk mars desam bu paan mu ni amul lu mu campagne élection locale dem di ko jaay kër bàyyi ma kër kër Macky sal diggante bi am fi ay milliards dafa teel na wax courtier yi muy def yan la courtier bay mën a séddoo un milliard cinq cent fenn ak feneen te nit ñi nee nañ am na courtage yu mu def ay milliards loolu la war a leeral askan dégg naa ne moom mi ngi def ay ñu xum ñu di fab ay milliards pasar pasaree ba jàpp ci xaalis bu bëri te leeralu ko loolu la war a wax askan wi. coow laa ngi ne kur déggoo ci kenn ku ci wax keesu état bi dërëm newu fa waaye keesu nit ñu baree bari ñu nekk ci nguur gi la nekk ca alal ca biir buñ ko génnee financé PSE ay milliardaires lañ mu mel ni sax boo xoolee. ñoon ñi ànd ak Macky Sall dafa mel ni dañoo gëmul na président Macky Sall war na mën a am sax deuxième mandat ndax yàlla rek mooy dogal loolu ba tax dañuy wax ne wuu dal naa ci wuu tëggum semmiñ la neex benn naqadi benn ñu waabale di toje rek di toje rek di toje rek loolu yëpp nag bu amee xam nga lu ko indi moo di ki nga xam ne mooy njiitu réew mi président Macky Sall du jàpp ñoñom du tëj ñoñom dafa wuuteeg Ablaye Wade ci loolu képp ko ànd ak Macky sàll boo sàccee cent milliards de francs CFA ñépp gis ko tëj sa bët Macky du la def dara dara la la dul def c'est l'impunité garantie te l'impunité garantie pour tous les partisans de Macky Sall yo xamne sax ay rapport épinglé len fi ño xamne jamono yi ciolang de top dara du ci muju mom kay man na sosal ñim japp ne andu ñok mom ba duggal len ci bir kasso waye ku and ak mom wala nga jégué soxnam wala nga nek nitu soxnam wala nga bok ci régime tojal kees defal lu la neex du mujj fenn fenn la jul mujj Ablaye Wade tëj na sax ay ñoñom Ablaye Wade tëj na fi euh, ki yoroon euh, Azer euh, tëj na fi Bayla Wan Idrissa Seck taxaloon na ko ci wàllu chantier yi Thiès tëj ko loolu yëpp am na fi Latif Guèye yàlla na ko yàlla yërëm loolu yëpp am na fi mais Macky xalaatu ko tojal kees sàccal mille deux milliards de francs CFA yóbbu du mujj fenn du mujj fenn dañ koy teg rek ci ay communication communication fii communication fee lépp ñu ngi ko bëgg a lal ci wax na nañu tontu sénégalais yi seen xel dafa fattu benn semaine rek ñu fàtte benn semaine rek ñu fàtte ñu tabbi ci mbiru Khalifa Sall wolof fi dañuy faral di wax ku wax feeñ ma dégg ba ñu ubbee procès en appelam kenn ci avocat état bi ne stratégie avocat Khalifa Sall yëpp jubluwuñ ci lu dul retardé procès bi ngir may Khalifa Sall mu mën a déposer candidature am ci élection présidentielle yi kon ñu jàpp timit le contraire ne nguurug Macky Sall wala Macky Sall ci boppam lamu bëgg moo justice am atte Khalifa Sall définitivement ñu éliminer ko ci présidentiel 2019 loolu mooy bëgg-bëggam te nag loolu bañu ci ba wuññu sutura justice yoonam newu ci justice moom yoonam newu ci lu mu bëgg da ngeen koy def par la force par la force amul jàng droit fexe leen noo leen ko génnee seen texte seen loi yooyu ba génn ko ba condamné ko boo déggee avocat état bi la mu wax jëmale ko ci avocat xalifa sàll da ngay jàpp ne liy mébét ak bëgg-bëggu régime Macky Sall du justice sax Sénégal régime mu Macky Sall moo di xalifa Sall daar daar xaw ma noo leen di def fexe leen ba laata ñuy déposer.

dossier bu méngoog Khalifa Sall ku ko xam defi la na nga ko wax ca traitement ba laa la wax ca instruction ba procureur juge d'instruction la ca am rejet constitution ba procès bu njëkk ba ba nañ ko pamt pamte matul sax ñaari weer ñu yóbbu ko ci cour d'appel ngir attewaat ko ku mës a gis dossier bu traité noonu rek nee ma bii traité nañ ko noonu kon bu leen joxoñee baaraam ne leen fi mu nekk nii attewu leen justice ndax dañ leen jox dossier waaye dañ leen jox ordre ne leen dossier bi defee leen ko nii tëj leen kii yoo leen xam dem na ci sax ba soo xoolee dañoo jël chef d'inculpation yu bare bari dugal ci pañe bi maanaam juge bi mooy tànn bu ko ci neex bu ñu demee ba ci deniers public ñu ci wax blanchiment d' argent xam nga loolu moom wax ku daanu saret la deniers public ñu ne blanchiment d' argent <laughs> xam nga mooy damay jël chef d' inculpation yu am yëpp def ci pañe bi yow nag yaay tànn ba ci neex l' essentiel mooy na dugg ci biir kaso bi nañ ko condamné loolu rek moo am ci dossier bi plus de 800 dossiers mi ngi ci turaaru cour d'appel 800 dossiers yo xam ay ati ati at maga fa lu ñu gawtul bi lutax ñu gawtul bi nañ ko wax expliquer ko sénégalais yi ben lay rek la wax oui moi je connais pas de dossier justice man dossier buñ ñu may indi rek ma até déedéet dañ né dossier bi deux mois la def 800 dossiers di xaar tey jii boo demee suñu kaso yaa ngi fees del ak ay nit ñu wara atté àtte ba tey ken atté wu len ci yoon sax prisonnier yu nek fofu dañu wara a wu na leen lii jaaduwul ci deux poids deux mesures ne jaaduwul jaaduwul ben yoon ñuy def kumba am nday kumba amul nday parce que kumba amul nday bëgg nañ ko tëj ci biir kasso laata mm, ñuy dem ci élection présidentielle mo am condamnation définitive waaw avocat wu Khalifa seen client moo nekk ci biir kaso bi non xanaa ñoom ko gën a yàkkamti seen client génn ñoom koy bu la neexee ñu laaj ay renvoi parce que seen client moo nekk ci biir kaso bi gis nga liy dëgg mooy xalifa Sall sax moo may lii yëpp su ma ko doon xelal dama ne ko boo demee jàkkaarloog juge yi bul wax dara lu la laaj nga muuma def nuyu seen abré ne leen daal xam nga liy dëgg wax leen liñ leen sant ngeen def après ñu dem parce que vraiment bu ñu tardel bàyyi say avocat nag ak ñoom waaye yow buñ la ñàkkaloo fayda ci lan ngay taxaw foofu ñu leex mbi li mic foo ko jëlee factures yi lii factures yi laa même chose la même chose on la même chose parce que soo xoolee ni ñu ko accéléré leer na la condamnation définitive bi nga demati cassation ñu defaat la même chose parce que ay ordre la yoo xam ne il faut les exécuter loolu nag moo ñu tiital parce que dama yàgg di wax ne nañ respecter justice wekk ko c'est le pilier le plus important de la société bés bu daanoo rek <laughs> daanaka réew mi yëpp ci nërmeelu yi jëm jeexal ak parrainage bi gis ngeen semaine bee ñu génn dañoo jékki ba si àgg rek xibaar génn ne loi sur le parrainage dañ ko dindi léegi dañ ko bàyyi tekk ci suuf ñu bëri na alhamdulilah Sénégal gi yëpp ne alhamdulilah na Macky Sall war nañ ko sant gërëm ko ndax xelam dellu siwaat na ndekete ak njuumte la loi bi nga xam ne moo war a changer code électoral bi lañ génnewaat pour defaraat ko yóbbu ko fi mu nekk nii en procédure d'urgence xamna procédure d'urgence mom bëgg nañ ko lool ci nguurug Macky Sall procédure d'urgence la même acte trois de la décentralisation kon luñ ci mëna wax moy bés biñ ko génné réaction bi am ci sénégalais yi am lu mu wane wane na sénégalais yu bare bare bare bare bare bare bare ñi ci ëpp kenn andul ci loi bi loi bi loi président Macky Sall la ak i ñoñom ñu nekk assemblée sax sañu ñu ko débattre mukk xalaat xalaatu ko laa ilaha illallah moo tax loo gisoon jour buñ koy voté lu nit ñi yëkkati ci question rek ñu ne noo allons au débat allons au débat allons au débat ñëpp Seydou ay meeru ñu ngi allons moom dama ko yërëm parce que dama ne cet du wess cet du wess man nga dem ba sa fin carrière mu dal la du wess tay ji ban image le sénégalais di japp ci mom xana ñaari assemblée lu gëna yes ci sénégal moko jité ñaari assemblée nationale yu gëna yes ñaari législature yu gëna yes Moustapha Niass moko jité ak lu ñu leen wax yëpp ci moral ci alxuraan ci Yesu Krista ci Mariama <laughs> waaye yàlla lu may wax rek cat du wees leen sant di leen gërëm di leen di daje seen beneen chronique seen site dakarmatin point com incha allah.